à 14 heures 56 kenn benn journaliste génn na xibaar bi ñun ñu ne léegi comment se fait-il que sept sages yooyu dong ñu mën a nekk ci benn salle amul keneen information bi nga xamante ne moom la ñu joxe sur l'irrecevabilité de la candidature du président Karim mu génn ñu exposé ko sur la place publique au moment où sept sages yi ñoom dong ñoo nekkoon foofu mais journaliste bi journaliste dañuy def étude rek. léegi étude def. non je termine je termine. d'accord yeneen recours yi nga xamante ne déposé woon nañ ko pour les autres candidats ñu ne yooyu jàll na d'après lu ñuy wax ñu ne constaté nañ aussi que ni am na collusion ak corruption ci sept sages yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk biir conseil constitutionnel. ci sept sages wala ci deux deux sages yi non ci sept ci sept sages yi mooy ci sept sages sept sept lañ mais ci sept sages yi mooy am na ci ñaar. ci sept sages yooyu laa bëgg a wax donc ñaar yooyu mooy Cheikh Tidiane Koulibaly ak Cheikh Ndiaye loolu ñu jël ko def ko sunu proposition de résolution ñu ne aussi li ñu constaté mooy boo xoolee décision conseil constitutionnel décision bi ni koy tëggee bokkul mun naa ne conseil constitutionnel ak cour suprême bokkuñu ni ñuy kii parce que bokkuñu ni ñuy génnee seeni délibération dañoo xamal dañoo gis ne li ëpp ci considération yi ñu génne ay problème de parrainage la kon donc ñu ne comment se fait-il que 900000 électeurs yoo xamante ne voté nañ ci élection yi ñu génn ñu ne leen ci candidat yooyu seeni tour nekkul ci fichier électoral bi alors que ñoom voté nañ ci élection législative bi loolu c'est pas normal ku voté ci élection yi ñu génn en 2022 te actuellement fichier boobu moo disponible ñu ne conseil constitutionnel ñu constaté que ni 900000 électeurs nekkuñ ci ñu constaté également que neuf candidats yoo xamante ne ba ñu demee di déposer seen i parrain enregistré woon nañ ko par le greffe enregistré na ko ba pare jox leen procès euh, procès verbal comme quoi que ils ont déposé les parrains requis ñu ñëwaat ñu ne leen gisuñu seen ay parrain ça c'est le cas de Mimi Touré vous l'avez évoqué aujourd'hui récemment alors très bien il faut ñu def il faut léegi ma terminer hmm? parce que ma terminer ñu ne léegi ñun waxuñu ñun dong dañ cee boole ñëpp ñu ne comme que lii moo am ñun suñu candidat génn nañ ko ci mu jaarul yoon ak yeneen candidats yi dañuy demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire d'accord pour saytu hmm. ah, yan anam le conseil constitutionnel defee délibération am ak ci yan anam le conseil constitutionnel invalider la candidature de Karim Wade. ak ci yan anam mais la question qui talonne l'esprit des Sénégalais mooy yéen comme da ngeen dem ba wax corruption. Mhm. pourquoi pas vous avez pas choisi la voie judiciaire ngeen choisi la voie parlementaire parce que dès l'instant nga ne corruption. Mhm. ça veut dire que euh, voie judiciaire moo gën a logique. Mhm. ngeen dem porte plainte. ci juge yi ngeen ba indexé identifié kii deux juges yi muy Cheikh Tidiane Coulibaly ak Cheikh Tidiane Diaye pourquoi pas euh, euh, boo boo boo di nga comprendre euh, ba ñu déposé suñu proposition ñun dañ ànd à l'assemblée xam nañ ne voie judiciaire ci yoon bi ñu jël kenn waxu leen du bokk ci mais da ngay xool ban méthode wala ban yoon nga xalaat ne boo fa jaaree di nga am li nga bëgg parce tey jii mën naa ne lii réunir état de droit tey jii dafa des Sénégal. Ah si loolu ñu ne puisqu'on a vingt cinq députés nous sommes la première force de l'opposition parlementaire. que vous avez beaucoup plus foi à l'Assemblée qu'à la justice. parce que nee nga lu réunir état de droit au Sénégal dafa. léegi ñu ne dañuy déposer. Euh, cette proposition de loi okay. parce que proposition de loi boobu moom la ñu le règlement intérieur autorisé en tant que député mm-hmm. ñu déposé ko defar proposition bi déposé ko au bureau. mu commission euh, commission d' enquête parlementaire. commission d' enquête. mais dafa am lu jaaxal nit ñi. lépp euh, Saliou. Mhm. mooy que ni euh, candidature Karim Wade dañ ko dañ ko génne li juge yi wax mooy euh, bi muy bind moom. que ni il est exclusivement nationalité sénégalaise nga xam ne benn déclaration lay doon sur l'honneur mm-hmm. boobu noonu nekkul woon exclusivement nationalité sénégalaise après ngeen génn ne dafa am ñun ci ger yooyu ba léegi waxuñu ñu kan mooy le corrupteur parce que bu amee ay corrompu war na am ay corrupteur loolu ba léegi ñun waxuñuñ ko ngeen bind ci que ni am na benn journaliste bu jot benn xibaar après joxe ko à 14 loolu quand nekkul des euh, euh, moo joxe information information bi euh, donc am na lu xew. non non non wala demewul noonu. non non bi mooy dina révéler réellement lan moo am. waay parce que lii da nga def proposition de résolution nga wax da nga bëgg ñu saytu mais enquête bi démarré gul. Mm-hmm. parce que ba ñu déposé ci bureau bi. bureau bi da ko accepté. la conférence des présidents définir calendrier bi démb la commission des lois si lañu réunir ñu ne léegi dañuy def composition commission d' enquête boobu commission d'enquête boobu nan la war a composé woo léegi demain plénière bi ñuy wax nii demain si la ñu war a adopter réellement ñu mettre en place cette commission d'enquête commission d'enquête boobu seen liggéey moo nar a nekk lan comme li ngeen di laaj yëpp da ngeen yàqamti mais boo la ma déglu woon. fa laay teeree. non lay relance. waaw mënuñu la bàyyi rek pendant une temps aussi ngay wax. commission d'enquête boobu nu mu tëddee mooy day am président day am un vice président mu ngi ci exposé de motifs yi day am un rapporteur au total dana am onze membre onze membres yoo xamante ne ñi koy composé mooy les différents groupes de l'opposition de de de, de euh, l'Assemblée waa Benno waa Yewwi les non inscrits ak waa euh, waa Benno Yewwi le groupe le groupe Liberté démocratique changement mooy suñu groupe ñoom nag ñoom ñooy def seen liggéey seen liggéey mooy ñi leen ko réglement intérieur autorisé ñu déglu ñi nga xamante ne ñoom ñooy les principaux concernés ci li nga xamante ne ñoom la tuumal déglu leen ñu déglu leen. bokk na ci seen i prérogative député daal di woo juge euh, conseil constitutionnel pour mu ñu taw. expliquer une décision bokk na ci seen i prérogative wax na ci déjà nee nañu euh, du ñoo xam ne dañ leen a war taaj assemblée nationale di di di leen laaj jëmale ko ci ay mbir yoo xam ne dañ leen koy tuumaal ci commission d'enquête parlementaire Saliou Dieng. waaw léegi pour revenir ci li ma wax. règlement intérieur. Mhm. d'abord l'article 48. bi autorisé la mise sur d'une commission d'enquête parlementaire l'Assemblée dafa ne d'abord avant l'article 48 dafa am l'article 32 euh, excusez-moi voilà l'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires notamment chargées d'une mission d'étude ou d'information pour un objet déterminé leur composition ne doit pas dépasser douze membres leur pouvoir dure jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait définitivement statué sur leur objet jàppal loolu mhm. léegi li mooy article 32 32 oui. mooy autoriser député yi mhm. pour que ñu mën a constituer des commissions temporaires nga ñëw ci article 48 oui mu ne la l'Assemblée peut par une résolution créer des commissions d'enquête mooy résolution bi war a am suba mhm. parce que résolution bi indi nañ ko en en commission euh, Euh, des lois mooy commission permanente bi nga xamante ne ñoom ñoo doon réunir. dem d'accord continuer rek ci léegi l'assemblée peut par une résolution créer des commissions d'enquête les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale. Mmh. Article 48. Ouais. léegi ci li nga ma wax léegi. ne par rapport ak est député yi maanaam bu ñu defee enquête ba pare da ñëw soumettre xoo nga xamante ne ñu daal di toog xool mais ba léegi li nga lii di dégguma fi nga waxee ni i prérogative woote juge déglu. waaw moom laa lay jiw liiral nii. wax naa la article 32. Mhm. bi permettre député yi ñu mën a constituer des commissions permanentes. Mhm. des commissions temporaires c'est-à-dire ci commission temporaire yooyu mën nga ci. lii mënu dépasser six mois. non c'est maximum six mois mais article 44 les commissions peuvent entendre toute personne qu'elles jugent utile pour de euh, qu'elles utile de consulter article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée. Mm-hmm. moo nekk nii. toute personne est-ce que inclure les juges. mais les juges ah mais les loolu moom comme euh, tey Pa Moussa ñëwul donc euh, sur le plan juridique. mais mais mais dafa may article yoo xam ne. bu mel ne 92 léegi l'UMS. l'UMS bi nga wax léegi. ñun dañ ay magistrats yi dañ leen respecté mais boo xoolee ci UMS c' est une organisation corporative ñi fa nekk dañoo mën naa ne comme syndicat la mais UMS ci li ma doon expliqué léegi soo jëlee euh, attends je vois tout voilà c'est ça le bien à ce rythme moom xam naan émission moom. on pourra même pas faire 45 minutes. voilà boo jëlee. Mm-hmm. la loi la loi organique. 2017 mm-hmm. 10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats article 2 en son article 2. Mm-hmm. le corps judiciaire comprend les magistrats parce que foofu aussi day laaj ñu leeral ko.